subhaanahu wa taala jullit ci sang bu tedd bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, maa ngi santaat bu baax suñu borom ci résultat yi ñu jot tey te conseil constitutionnel di kuréel gi ko war a joxe joxe ko muy wane njeexatali élection bi ñu defoon le 24 février 2019 muy élection président de la république suñu borom ci mbaaxam def na ba yàlla may na ma ci ndam ci wàllu résultat yi conseil bi confirmé na ko kon coalition Benno Bokk Yaakaar candidat mu gañ di sant nag sénégalais yi d'abord si seen taxawaay ndax wane nañoo ne gëm nañu seen système démocratique gëm nañu ne seen wote du nax saay te ñépp ñuy teewe élection bi moo xam observateur bi ci biir réew mi yàlla xam na ne ñu bari la ñoom pare de plus de cinq mille observateurs juróomi junni ñépp xam nañu ne ci wàllu leeraayu élection ak jaar yoon élection bi daal na fi mu waroon jaar yépp organisation bu mucc ayib la woon amul benn gàllankoor ak benn tolof tolof loolu moo waral ma ne sénégalais yi tam seen taxawaay gis nañ ko ndax téeméer boo jël suñu bind woon juróom benn fukk ak lu topp jóg nañu kaw dem wote si jàmm ak salaam loolu nag dafa taaral suñu démocratie bi taaral taxawaayu Sénégal ci Afrique ak ci àdduna bi kon sénégalais laay njëkk sant ñoom laay njëkk a gërëm bu leer weesoo ma gërëm nag ñi nga xam ne tam taxawal nañ ma wooteel nañu ma euh, muy d'abord coalition bi bokkoon langue ànd ak man ñu tuddee ko coalition Benno Bokk Yaakaar yàlla def 2012 ba tey ñu ngi ànd ak man ci liggéey bi ak. lu ëpp benn bokk yaakaar coalition majorité présidentielle mooy leader yeneen yi ñëw bokkaat ak ñun ànd ci élection yi ñu dëg maloon muy élection 24 février di sant électeur yëpp ñi nga xam ne taxaw nañu wooteel ñu waaye di sant it ñi nga xam ne électeur lañu te wooteeluñu ndax si démocratie la nekk ci réew la ñu nekk kenn ku ne te dinañ jàpp ni ñoom ñooñu bañ a bokk wooteel ma wooteel yeneen i candidat ñi nga xam ne noonu la démocratie di doxee na leen leer ni danaa def jàngat ci vote bi ñu def lan moo waral loolu wala boog lan la meree président wala lan la président war a def lu mu defuloon ñu taataan xalaat yooyu yëpp moo tax ma ni sama taxawaay tey en tant que njiitu réew mi ci kattanu suñu borom ak bëgg-bëggu askan wi sama taxawaay mooy tàllalaat loxo nag Sénégal yëpp muy opposition bi muy force vive muy société civile ci loolu tàllal naa sax loxo ñaar ñi ma jiitu woon te nekk fi muy président Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade ngir ñoom nit ñu indi seen xalaat ndax yoroon nañu réew mi ay diir am nañu expérience am nañu xalaat xëy na bu ñu toogee waxtaan du ñàkk si li nga xam ne nit ñi jàpp nañ ne war nañ ko waxtaanee waat ñu mën ko waxtaanee waaye du tere ñu jàpp ne Sénégal démocratie la boo xam ne kenn mënu ko gàkkal ndax loolu mooy li am c'est une démocratie majeure boo xam ne amul dara dara loo xam ne am na lu mën a teg ci kaw Sénégal maintenant nag léeg-léeg nee nañu parrainage bi xëy na control bi sévère na wala lii wala laa yooyu yëpp mën nañ ko waxtaanee. ci kaw muy waxtaan boo xam ne bu ubbeeku la du am benn condition ni de la majorité ni de l'opposition mais ñu toog waxtaan xool lan lañ mën a avancé loo suñu réew su loolu weesoo it ma sant nag ñi nga xam ne ñoom laa dénkoon koon tant que président de la république muy gouvernement bi organisation élection ba mu tàmbee ci ministre de l'intérieur def na liggéey bu rafet ndax yombuloon te ñëpp doon xaar si roq bi ba xam ndax tolof tolof dana am waaye nag comme amul ñu ndokkeel ko félicité ko ci loolu ak ñëpp ñu nekk ci circuit bi muy direction générale élection muy administration territoriale surtout administration territoriale muy gouverneur du préfet ak sous-préfet te Sénégal suñu système électoral dégg naa en tout ñu bëri ñu jàpp ne ci Afrique ak feneen xëy na système bii ñu bëri mën nañ ko copier ndax système bu élaboré la acteurs i yi ñu ngi ci muy parti coalition yi mais surtout kuréel gi saytu leeraayu élection muy Sénat mu ngi fépp ci processus bi depuis inscription sur les listes électorales distribution des cartes bureau de vote yi retrait des cartes ba ci dépouillement ci commission départementale bureau de vote d'abord bureau de vote fukki bureau de vote te it lépp luy saytu résultat yi justice moo koy tribunal donc muy commission départementale délégué cour d'appel ñoo fa nekk muy commission nationale muy conseil constitutionnel bi nga xam ne nag mooy jël décision bi mujj donc loolu lu taaral démocratie Sénégal waaye démocratie dañ koy toujours gën a avancer loo gën koo euh, defaraat moo tax mën nañu waxtaan nag toujours pour gën a gën a jëmale démocratie bi ci kanam jàpp naa ne man sama bopp am na lu ñu war a mën a améliorer ne serait-ce que wàllu joxe résultat may féliciter presse bi parce que depuis élection yi yàgg-yàgg grâce ak résultat yi ñu joxe instantanément ci bureau de vote yi mais kenn amatul benn jafe-jafe ci xam lu xew ah bañ ko nangu loolu nag dafa nekk un élément de transparence bu am solo boo xam ne presse bi tam joué nañ rôle bi ñu ndukkalee leen ko ndax si saa si fu 18 heures jotee ñëpp daañu déglu y compris candidats yi seen bopp y compris administration parce que presse bi moo leen gën a gaaw si ci résultat donc loolu tam lu am solo la jàpp na waaye nag si diggante xam résultat bi ak bañ koy wax dana des ay ñett ñaari fan ñetti fan xëy na loolu tam mën nañ ko améliorer donc war nañ mën waxtaan ci wàllu euh, système électoral wala système politique xool mbirum opposition statut de l'opposition xool yooyu yëpp mën nañ ko waxtaanee joxe woon naa si déjà sama xalaat d'accord naa si ndax constitution bi nga xam ne moo mooy référendum bi nañ ko defee ci laa ko dugaloon ñu wote ko donc man bañu ma loolu kon loolu yëpp nag lu ñu war a mën a waxtaanee la ci man naa que élection yi jàll na Euh, war nañ mën waxtaan aussi si lëpp luy koom-koomu réew mi ak ressource réew mi amuñu si benn euh, xaar ma yàlla mën nañu donc tàllal suñu loxo pour que ñu waxtaan waxtaan boo xam ne njëriñu réew mi la loolu moo doon li nga xam ne tey bëggoon naa ko wax te ñu xam ne wàllu nag fa ñu jëm damay bàyyi ba waxtu def prestation bi jot ndax ci la mandat bu bees bi di tàmbali fii ba le 2 avril ba la ñu génn moom mooy tax. à partir du 2 avril nag président bi ñu falte incha allah dina xëy na joxe ay xalaat ci doxalinu réew mi ci at yi ñu jëm maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm wasalaam